الرابعة فوالله إن هذه لكرامة الأولياء dëgg dëgg dëgg dëgg ku yàlla na mu la fay du la liggéeyloo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku yàlla na mu la fay du la liggéeyloo lii ma leen bëgg a nettali day aw ma lu may sikk sàkk ci ni ci karaama ak mbaax mbaax yàlla may jaam yi koy topp la déglul bu baax nag ak sam xel ak sa nopp ma ne isma waaqil bi anna li awliya illahi karamatin la karamatin kama anna li awliya shaytan kihanatun wa sihr gaa yi yàlla yi ñii topp yàlla dere di ko topp dëgg dëgg comme na ko yonent yàlla bi jàngalee woon yàlla may na leen ci ay karaama ay kaawteef ay xarbaax ak kéemtaan yoo xam ni ku ko gis da ngay xam ni kii nitu yàlla la comme ñi nga xam ni ñoom ñooy topp seytaane ni ñu amee ay kiraana ki buxaabaaki njabar fakil bi hada almikyal in aradta najaa ida raayta almara ala alhawa yatiru aw jalisun ala ala kursi fandur ayna huwa min kitabillahi wa sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saa boo génnoon fii nga gis kuy naaw ci ngelaw li mbaa nga gis ku jël piliyaanam ferankulaay ci kaw ngelaw li mbaa mu wéeru sa mbaa mu tëdd ci lalam ci kaw ngelaw li su boobaa bul ca yéemu la nga war a def kay mooy nattal waaj a def loolee fan la toll ci alquran ak sunna soo gisee ni ku nëpp la ci alquran ak sunna dëgg-dëgg nëpp ku nëpp la ci jàngale yonent bi dëgg-dëgg nëpp xamal ni kii lii mu nekkee may yàlla subhanahu wa taala waaye soo gisee lan nekk mu wuuteeg la yonent bi nekkoon ak lu man ci am sànnil te nga xam ne loolu seytaanul marid kooku seytaanul marid seytaane bu firi ay laafam la rek pour mën a naan al imam az-zahabi mu ngi nit li ci siyar mu ni am na benn jigéen bu ñuy tuddee aishatu as-saima aisha woorkat mu ni baqiyat abyada min ishrina aaman la taakulu shay'an qat mu ni toog na lu ëpp ñaar fukki at kenn mësu koo gis mu yëkkati lekk dugal ci gémmiñam allahu akbar lu ëpp ñaar fukki at mën nga koo nekk ak ay nit mësoo lekk moo tax imam zahabi te xam ngeen ni ku ku ku ku xam histoire la ku xam nettali la ku xammee lu wér lu wér ba mu noppee ci nettali bi pour wàll nga lu wér la lu mu ca teg mu ne fa subhanallahi alqadiri ala kulli shay dëgg dëgg tudd naa sell ak yàlla mi nga xam ne lu ne moo ko man mu ne gis nga xissa bii ma la nettali lii may wax ay waxam la lii may wax waxi sahabi la mu ne xissa bii ma la nettali bul yaakaar mukk ni ay xuraafaat laa ci lépp mu ne lu wér la lu nu xam la ndaw si du malaaka ndax mi ngi tudd na Aïcha doomu abi aasim ah moom moo nekkoon bàjjanam abi ishaq ibni bilal aïcha la tuddoon binti abi aasim bàjjanu abi ishaq ibni bilal mi jiite woon soldat ci jamono jooja la néeg ba mu nekkoon bu ñu xam la jàkka jam nekkoon ju mu du ñu xam la xam nañ ay duggam ak ci génnam xam ñaata at juróom fukki at la dund te ci atum maanaam ginnaaw sab'a mi'a ginnaaw juróom ñaar téeméeri at ci faatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la woon kon kii du malaaka du jinne waaye nit la ku nu xam xamu askanam ah xami dugg duggam ak génn génnam waaye yàlla moom mën na lu ne moo tax mu ni toog na ñaar fukki at lu ko ëpp gémmiñ ji maanaam ñam dugg ci mu ni wala masilatu oxra kaanat bi naaxiyati waasil mu ni même ndaw si lii mu ni du lii kese mu ni am nañu wa nit li xissa bi du wér ay boromi xam-xam ah muy Abu Abdillah Ibn Rabia muy nitali na ko ni ko xissa bi lu wér la ah Mouhamed Ibn Saad al-Aashiq mu ni borom xam-xam la tamit laaj na ko ko mu ni ko lii lu wér la ndax nee na ñi ko ko nitali ñu fekkee ndaw si la kon nii du ay xuraafaat mu ni am na keneen ku mel ni moom ñu ko koy waasit ginnaaw juróom-benni téeméeri ak ca lu yàggoon ginnaaw faatu yonent bi mu ni sama sëriñ bi di wax Alfaaruusi moo ko ko nitali moom fekkee ko waaye dañ ko ko nitali ak yeneen ak yeneen ci dundu salaf yu lay wan ni kon yàlla ndekete ñi ko doon jaamu doon góorgóorlu ci jigéen ña ma nga leen doon may ay may comme ni mu doon mayee ay góor nañ doon jaamoo yàlla xam ngeen ni loolu du tax Isa ibni Maryam doonte du ma ne xista bi ab yonent la kon bul jàpp ne ab yonent la ko yàlla dafa ko ci joxe waaye ak ku dul ab yonent Isa ban dañ koo dañ koo laaj waaye Isa yow mën ngaa jaar ci kaw ndox di dox mu jaar ci kaw ndox di dox day daal am na nit ki bu ragal yàlla rek mën na ko benn waaye ne ko ah téemaa essayé mu ne ko essayé waa ji xëcc loxo dañ koy xëcc rek waa ji daal di ah ah bi mu neexee tànk bi dara des mu ne ko ah ji firnde lay war a ne yow mi wóoruwoo yàlla boo ko wóoru woon di nga dox si kaw ndox mi comme ni ma doxee ndax yàlla jagleelu ko ay yonent kon daal lii moo lay wan ni yàlla subhanahu wa taala ñi koy jaamu ba léegi ñu ngi leen defal ay dimbal Maymuna bint Saaquula borom xam-xam bu mag la ci jigéen ñi moom it mokkal alquran na teg ci ba mu jeex benn bis da doon waaraate ba mu yàgg mu ni mu ni ndongo yi mu doon jàngal ndongo yi jigéen ñi ak góor ñi mu ni gis ngeen mbub mii ma sol ñëpp daal di siggi bët xool mu ni xam ngeen mbub mi kañ laa ko amoon ñu ne ko déedéet mu ni gis ngeen mbub mii ñeent fukki at ak juróom-ñaar maa ngi koy sol te ba léegi foriwut xotteekuwul mu ni sama yaay ko raaboon jox ma di ko sol nit ñi mel ni ñuy yéemu mu ne ah lii du lu yéemu ndax yére moom boo ko tàmmalul mooy yàlla du gaaw a xotteeku allahu akbar gis ngeen mbub mii may sol sama yaay moo ko rabboon ñeent fukki at ak juróom-ñaar maa ngi koy sol musta furi musta xotteeku te ba léegi maa ngi koy sol nit ñi yéemu mu ne jërut yéemu ndax yére moom boo ko tàmmalul mooy yàlla xotteeku du ko yomb furi du ko yomb allahu akbar allahu akbar maymuna moomu bintu saaxuuna doomam bu ñuy wax Abdou Samad mooy nit li mu ni bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne gis naa yàlla may ko sama yaay mu ni benn bis bi may nekk gone miir bi nekkoon ci kër gi da doon waaj a daan mu ni miir bi nekkoon ci kër gi daa wengoon di waaj a daan mu ni ma ñëw ci sama yaay fekk gone ko ndaw ni ko yaay daw sil daw sil gaaw miir baa ngay waaj a daan te ma dem wooy papa diw mu ñëw defar ko maçon bi yaay ji ni ko déedéet xaaral ma ñëw mu ni yaay ji dugg ci biir jël benn feuille am lu mu ci bind jigéen de mu am lu mu ci bind daal di koy yem ni ko soo demee roof ko ci ron miir bi nga bàyyi ko Abdou Samad nee na ma jël feuille bi ñëw roof ko ci ron miir bi dem sama yoon mu ni miir ba def na fa ñaar fukki at noonu mu dëngee wala dëng ba sama yaay dee bàyyi ko fi te daanu mu ni bi sama yaay faatu may nag moom mbir mii moom foog ma xoolal na comme léegi faatu na xaar ma sulli ko xool lu mu doon mu ni naka laa yor sama loxo di sulli rek miir bi daanu waaye nag fexe naa ba sulli ko fekk yàquwut ma xool ko nee na bi ma ko xoolee maa ngi ci gis maanaam sama yaay mu daal di am lu mu ci bind daf cee bind aaya bi yàlla yak suurtu faata inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula yàlla day subhanahu wa taala moo nank téye asamaan ak suuf ba daaruwuñ ci seen kaw mun a def ca suuf allahuma mumsik alsamawati wal arda amsikhu yàlla yow mi téye asamaan te amuñu doolee defal sunu miir bi maa ngi lay ñaan yàlla na nga ñu téyel miir bi mu ni lii laa gis sama yaay bind ko ci fooyu kon lii firnde la suma bunt bi bu yaatu la boo xam ne mën naa ci indi lu bare bare bare bare bare xam ngeen ci alqabidatu ala aljamar nit li woon na leen umu ayman ba muy gàddaay dog jot mu mar amut lu mu naan dégg luy kelen-kelen mu seen ci asamaan bi gis ab baat mu daal di cay jël naan ca ba xolam sedd baat bi yoor waat ci asamaan dem fu ndox ma bàyyi ko yàlla xam waaye ba ni umu ayman faatoo nee na musuma mar mu ne léeg-léeg naaju day tàng ma toog ci naaj yu bëgg a ñàkk ngir mar ngir ma ma leen naani waaye day mel ni keroog jooju ca laa gën a mànd mu ne maay jékki-jékki sama xel dem ci ndox rek ma naan kon daal jaami yàlla yu baax yi ñi doon baax ak ñiy baax ba tey kenn ku ci nekk ak ruq soo mën ci nekk suñu borom bi lay defal dimbal fii may wax rek fii ma toog rek teewlu naa ci nitili buñ ma nitili te kiñ ma nitili dem naa ba ziyaara ji ko kiñ ma nitili dem naa ba ziyaara ji ko xam ko waxtaan ak moom su ma tuddoon turam yaakaar naa ñenn ci yéen danañ ko xam waaye mën nañ di dëbbal jaam yàlla seen mbaax mbaax ndax noonu lañ koy bëggee mbokkum jullit mu baax la mu tënku ci sunna yàlla yàlla gën koo sàmm mag la ci daaw bi tamit tabaski dafa jub si benn ndongo ñëw ni ko man de dama amul xarum tabaski dama bëgg nga dimbalee ma su fekkee yàlla wërsëgal na lu ma amee xarum tabaski mu ne ko ah man de fi ne maag yow yam xanaa ma dugg ñaan yàlla daal di jàpp ci saasa dugg ci biir néegam di julli ñaar naka pour ñaan yàlla xar fi mu duggee ci néeg ndeke am na ku omatee xaram kër yëgoowu ni ñëw di ko may si bi mu sërmalee génn ñu ne ko xar mi de yow lañ ko bindee dafa daal xëm xissa bi kiñ ma ko nettali man dem naa ba jox ko loxo nuyu naa ko xam naa ko mag mu baax la ci magi daaw yàlla yàlla gën koo sàmm te ki ma ko nettali ku ko xam la ndongo la boo xam ne maag moom ñoo doon jàngandoo may nekk Thiès te foofa moom moom ñoo bokk dëkk kon daal lii firnde la bu lay wane kon yàlla subhanahu wa taala mi ngi doon may jaami yàlla yi ay may ba léegi ama loxatul xaamisa juróomeel waxta bi nisaau salaf wal ibada bi anwaiha al kathira jigéenu salaf ak tënku ci jaamu yàlla ak façon jaamu yàlla yi li muy bari bari bari bari al imam ibni kathir boo demee ci al bidaaya wa nihaaya te téere yi ma lay wax mën naa ni yii ma lay nit li yépp boo ci delloo da nga koy fekk kaw ci fii siyaru alamin nubala bu imaamu zahabi usudul gaaba gaynday àll bi muy saxaaba ya bu ibn al athir ah bidaaya wa nihaaya ibni kathir ah téere yu bari téere yu bari yoo xam dañuy taalif sifatu safwa ibne jawzi ci dundu saxaaba yeeg taabiun yi wa kadalika al isaaba fi tamyiz saxaaba ibne hajar téere yi ma lay wax boo ci delloo yaakaar naa ne lii ma la wax man nga cee yendoo ñett téeméeri guddi di wax te boo wax rek doo ko baamu te bu nekk kaawteef lay doon ci seeni jaamu yàlla seen ragal yàlla so demee ci albidaaya wa nihaaya imam ibni kathir mi ngi nettali jigéen joo xam ni moom ibni kathir gis na ko te xam nga li ngay nettali ñu nettali la ko lu mu wér wér wér wér li nga teg sa bët dara du ko gën a wér imam ibni kathir mu ni ndaw si may nettali moom ci sama téere bi yàlla dafa def moom jot naa dund ak moom xam ngeen borom xam-xam yi ni ñuy taalifee téere dañuy indi dundu gaa yu baax yi di ko toftale ba seen jamono ibni kathir nag ci jamono yonent bi la tàmbali ci déedéet ci jamonoy aadama soo demee ci bidaaya wa nihaaya bu jallat bu njëkk ba lépp la ko tàmbalee ca aadama ba ci yonent bi lépp ma ngi ko fay nettali lépp ma ngi ko fay nettali ca la ca laa doon nettali mbokk yi xissa bu yéene boo xam ne kéemaan la ndax tey suñ nee la suñ nee la koo xam ne ay doomam a ko mag koo xam ne ay doomam a ko mag yaakaar naa laaj boobu su ma leen ko laajoon di ngeen yéemu de du noonu la waa joo xam ne góor goo xam ne doom yi mu am yëpp ñoo ko mag loolu xam naa ne kuñ ko waxoon tey kéemaan lay doon mooy kan mooy Uzayr mi yàlla tudd ci alquran so dama ibni kathir ca bidaaya wan nihaaya ma ngi ko fay nettali gis nga Uzayr dafa dund ba am ñeent fukki at war mbaamam romb benn dëkk fa buxtu datal jaaram faagaagal ko nu mu def mu ne ah lii de nan la ko yàlla jekkalee moom dina yéeme de far yàlla rey ko moom mbaamam mooy xista bi ngeen xam ci alquran mu tëdd fa téeméeri at téeméeri at su ko doolee ci ñeent fukki yam dundoon ñaata at la yam ah daanaka day am téeméeri at ak lu topp te bi muy faatu bi ko yàllay faat ak mbaam mi bàyyi na ay doom ci kër gi yàlla dekkal ko mu jaar fam jaar ba ñibbisi ci kër gi fekk ay doomam ay doomam ñoo ngi bejjaaw bay sukkootu moom mu nekk góor gu nekk quarante ans kon kii man ku rëy na ci kéemaani yàlla yi subhanahu wa taala moo tax waxtaan ba di wax ni maanaam yara innahu shaykhan yatibbu ala al ata ah dafay gis doomam ma ngay sukkootu aw yax di dox ci fekk moom ma nga nekk góor gu dëgër gu am kàttan ah mu nekk koo xamante ni maanaam waswadda rasun shaaba min qablihi ibnuhu wa min baadihi ibnu ibnihi fa huwa akbaru karaw waajaa ngi ñuul kukku ah te moo ne doomam ak sëtam ñoo ngi bejjaaw doomam am na téeméeri ak sëtam am na juróom-ñaar fukki at te moom mi ngi am ñeent fukki at kon loolu yow yi ni katir mën koy nisi ci bidaay wa ñaay boo demee ca tom yu mujj ya tom meeg jamono ma ngi nettali benn jigéen bu ñuy wax Aïsa Aïsa bint Ibrahim ibni Siddiq mu ni kii moom xam naa ko ndax sama soxna sëriñ la woon sëriñam bi ñu tuddee alxaafis al Mizzi nga xam ne jàngal na Ibni Hajar soxnaam moo tuddoon Aïsa bint Ibrahim mu ni daanañ jàng ci kër sëriñ bi Ibni Kathir mu ni mësuma teg sama bët gisuma jigéen ju jàmbaaree nii ci jaamu yàlla ak ay façon jaamu yàlla ak ragal yàlla ku wattu woon alquran la dund lool aw fan wu gudd yéemoon jamonoom ay jigéenam ndax nu mu mat manoon alquran su doon tajwid alquran mu koy jàng di génn xuruf yi su dul baat di ngay xàmmee ni jigéen la am naa setaay bi rek da nga naan lii moom jigéen mënu ko góor a ko man bari waa na ay jigéen ñu mokkal alquran te ci loxoom lañ mokkalee su daan làkk arab da nga naan kii moom moom moom làkkati arab yëpp dañu war a noppi di ko bàyyi muy wax ndax nim ci mel waaye mu ni li ñuy dëkk ak seen ñëpp ku dëddu woon addina la ku bari woon ay naafila la ku baaxoon la ku néew woon ay poñeti addina la amoon na lu mat juróom-ñaar fukk ci ay at moo tax mu ni suñu sëriñ bi mu ni am na juróom-ñaar kat yoo xam ne anfaqaha fi taatillah juróom-ñett fukki at balagat samanina sana anfaqaha fi taatillah am na juróom-ñett fukki at yoo xam ni mi ngi ko sëfre ci topp yàlla subhanahu wa taala noonu mu ni moo tax sëriñ bi da ko bëggoon mu ni sëriñ bi daaw ko kafe daaw ko foye te moo yey ndax li mu am mooy trésor wallahi lii mooy trésor koo xam ni xool ko rek daf lay fàttali yàlla soo dafa ko boo ko moomee loolu mooy trésor mu ni moo tax sëriñ bi mësul bëgg lu ko naqari mu ni ba ñu faatoo ci sunu kanam naafi la woor julli guddi jàng alquran jàngale ko jàngale xam-xam saraxe mu ni lii lañ ko xamee kon yii di ay mbir la yoo xam ni boo ko xoolee ci dundu salaf bari na ca lool ci niñ doon jaamoo yàlla ah bu ngeen delloo ca waxtaan yooyu ma leen dund sànq da ngeen ci gën a yaatu bunt bi amal waqfatul axira mooy waqfa bu mujj gi kooku ay nafaayix la ak ay ndénkaane ay ndénkaane ak ay laaxe biir yoo xam ni maa ngi leen koy defal yéen samay mbokki jullit yëg leen ni mboolem lu nu fi wax nga boole ko waxtaan yi jiitu woon lan ca doon wax da nga naan gaydun min faydin wala qatratun min baxar benn picc bu ñëw rek daal di cof ci beg bi ak toq ndox ci géej gi lay nuru li ñu wàcc li ñu andiwut li ñu nittaliwut li ñu xamul li feeñut la nga xam ne seeni borom seen noonu na ba yàlla def def sa feeñ sax kenn xamul fu toll te loolu mënuñu koo nit kon du xam su fekkente ni dañuy bëgg dañoo bëgg sunu askanoo ci salaf wér su fekkee dañoo bëgg sunu roy muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg bu yeboo nan yëg ni sunuy daal yéen war a sol pour topp Mouhamed ci yoonam bi muy dox takk guñ ko solo guñ ko sax pour départ ñaareel bi ñu xam ne bu kenn wax ni roy salaf mënta nekk ci jamono ji ñu toll déedéet alquran sax alquran mi nga xam ni moom moo téere bi gën a man moo taxal ni salaf moom mënees na leen roy ah ulayka alladina hadaahum allah fa bi hudaahum muqtadi fa in amanu misli ma amantu bi faqdi tadaw ak aay yu bari yu lay wan ni dañuy soññ pour nañ jéem a mel ni moom nañ jéem a mel ni moom. tey jii xam nañ ci ay nit yu nuy dundal ay nit yu nuy dundal ay xeeti mbaax mbaax yoo xam ne boo ko nit li woon ni la yii ay nit lañ yu nuy dundal xam nañ leen su may waxoon ñenn ñu ci bari su may waxoon ñenn ñi su ngeen xamul ñëpp ñu tabar di ngeen leen xam te jamono bii nuy dund ci lañ nekk. te di ay góor ak ay jigéen kon de dëgg-dëgg di ngeen xam ni maanaam li ñuy wax naan jamono jooju tam meloon moo tax ñooña mën a mel noonu ba léegi kenn mënta mel noonu loolu ay wax la rek waaye loolu amut li am mooy la doon baax mi ngi fi li wolof fi naan li fi newoon jógu fi waaye ñu ko def noonu rek kay ñoo fi nekkul waaye la fi newoon moom di baaxalaate ba léegi moom maa ngi leen di dénk yéen samay mbokki pas-pas ak ngëm yàlla nga la waay addina bii ñàkk solo lool nga xam ne dañuy dee ba ko fi ak mboolem luñ fi am nga la waay nan ci romb jàll te bañ koo dundal nan ko romb jàll te bañ koo dundal bari waa na ku ñu fi jiitu woon doon ko dundal kooku jóge na fi tey luñ ci mën ci dundalit dañ fi jóge suñu borom ni i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahu addina bii day folaa ki caaxaan ak ak i xëccalanteeg wa takaaturu fi l amwali wal awlaad ëppalante alal ëppalantey doom mel ni taw bu taw yàgg lool suuf si mandi gàncax génn naat lool kuy kontaan kontaan diir bu gàtt ngay toog rek ñax ma wow ñu ne ananu ñu ne nag ya lekk nañ ko su ma yahiju fa taraw musfaran su ma yakunu xutaanan mu ne alaxiraate rek wa fil axirati adabun shadid loolu njig ñi bu rëy la bu lay wan ne ko nekkee addina bi dañu romb jàll rek wa ma xayaatu dunia mooy illa mataaul gurur addina bi amul solo suñu borom ne inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha fonnate addina bi dox seen diggante jaamu yàlla taar taar laa ko def ci kaw addina li nabluwahu ayyuhum ahsanu amal yàlla daf leen di nattu ngir xam ñen ñoo gën a rafet ay yëf wa inna la jaa'iluna ma alayha saidan jurusa daanaka daal lu xaw a mel ni ak jàngi rek ñunóori addina foo xam dara tewu fa kon ngal la waay nañ fi romb jàll wut fi lu ñuy defaral alaxira waaye bañ fee toog di ko dundal ndax yàgg-yàgg dañ fiy jóge luñ fi bees looy danañ ko rafal nga la waay dañ yëg ni yéen mbokki pas-pas yi te bëgg roy salafu saalih ne bëgg addina de moo dox suñu digganteeg tëli lépp lu ñuy dégg ci dundu salaf mboolem lu ñuy dégg bëgg koo jëfe mu dënu rek nanu xam ne bëgg addinaa fees suñuy xol moo tax mënuñu koo jëfe te bëgg addina nekkate mooy bopp bépp njombe booy dégg ak musiba ñu xam ne di yàgg a xool loo lu la islam tere nga xool wala di xool ay bëgg-bëgg ak ay béréb dafay saxal ci sa xol garabu bànneex te bariwaa na bànneex bu sax ci xol borom bëgg a gor garab ga mu tëggu nga bëgg a defaru mu tëla nga jàngal xol bëgg a jariñu mu tëla ah ba pare jural la njàqare goo xam ne daf lay topp ba bii bànneex nga la waay mbokk yi jigéen ñi maa ngi leen di dénk noonu ànd ragal yàlla subhanahu wa taala nga la waay maa ngi leen di dénk sunu bët yi nan ko tamal jooyal yàlla subhanahu wa taala sunu bët yi sunu bët yi nu yàlla jox muy xéewal gu rëy lool balaa ñu kon woon xam tey ñu ñàkk ko nan ko tamal jooyal yàlla yàlla du lakk insha allahu bët boo xam ni jooy na wéet te yàlla rek moo tax mu jooy ak ragal ak ciit sàbbi sawar xalaat ci say bàkkaar xalaat sa wéetaayu bàmmeel yow kese ni montagne ba ba xisaab la ci lu toll ni fépp ceeb bi xalaat guddi gu njëkk gi ngay nëkk tëdd bàmmeel xalaat bis ba ñuy séddale téere yi jëf ya ana ban loxo laa jëlee sama benn xalaat ni man bu ñuy séddoo këri ajana yi ndax danaa ca amam du ma ca am xalaat ndax bu ma faatoo man danaa bokk ci ñiy texe wala du ma ko def maa yàlla jëppeewu ma benn ci samay bàkkaar yoo xam ni moo tax sama dara baaxatul allahu akbar kenn ci salaf dafa toogam yàgg mu ni man xam naa li tax xam naa li tax li ma nekkee musiba yi ma nekkee xam naa li ma dal mu ni bu ma wàññi ñeent fukki at ci ginnaaw damaa yëg ni am na benn waay boo xam dama kaa mas a xas ni ko yow ku potus nga yow mu ni loola ma ko waxoon wóor na ma ni ci la ma yàlla pinee ba tey may daj li may daj ci ay musiba subhanallah kenn ci salaf mu ni waaw wax na dëgg de seeni bàkkaar daa tuuti woon moo tax ku musiba dal nga xam fan la musiba jaar ba daal la ñu ne suñuy bàkkaar daa bari moo tax musiba bu ñëwee doo xam musiba ji fan la jaar ba daal la allahu akbar ibrahim ibni adham mu ni damay def bàkkaar même moo fàttee bàkkaar bi su ma ñibbisi sama kër dinaa xam ne def naa bàkkaar ñu ne ko noo koy xamee mu ni sama ñaaw jikkoog soxna wala ma war sama fas wi mu wangentuma wala sama mbaam mi wangentuma mu ni sama soxna su ma waxee lu ma naqari wala mbaam mi wangentuma wala fas wi wangentuma dama yëg ni maa tooñ yàlla yàlla fayeeku ko ci fayeeku ko ci ci mbaam bi wala fas jabar ji wala soxna si kon xalaat say bàkkaar nga jooyal yàlla ku kenn fekkeewut tamal sa bët jooyal yàlla subhanahu wa taala nga la waay na bokk ci suñu programme buñ bëggee roy salaf bi nga xam ne loolu moom daa bokkoon ci li gën a tuuti ci mandarga yi ñu leen di jox nga la waay suñu yaram yi nan ko tamal muñ ab jullit dafay muñ bul perte ñaari yoon am ay natt neex le woo ci àddina neex le woo laaxira boo fekkee woon fa yàllay fayee muñkat ya da ngay mbébét ci àddina yàlla day jël ay ràbb di ko jamat ci sa yaram bi ngir nga am tiyaaba ju doy ni xadis la bu wér yontu moo ko sallallahu alayhi wasallam kon nañ tamal sunu yaram yi muñ jënd jigéen ci jigéen salaf day dox ànd ak ay morom ba mu yàgg rek mu fa kastalu ci xeer rek baaraam bi foqati ko dañ complètement xeer wu rëy mu dindi baaraam bi mu jonkat daa di ree allahu akbar bi mu ree ñi mu àndal ñëpp yii mu ndax baaraam moom teggeeku na ba teg tege fële nit ñi wax yow yow yow li ngay def mooy lan kii moom jënd da koo jàpp wala lu ko lan mu ne déedéet bànneex bi may sentir ci bu yàllay fay muñkat yi su dee yàlla tax na ma muñ moom moo fomp mitit wii ma dal fii ma toog fi mu kon nañu tamal sunu yaram yi muñ sunu xol yi nañ ko tamal di weet di xalaat yàlla déglu rajo déglu télé dem marché ne ca mbedd ma waxtaan wu amul bopp amul geen kuy wax ku ne nga jox ko sa nopp mbaa xam ngeen ni sa nopp bi da nga koo war a sàmm ba du waxkat bu nekk nga koy jox muy déglu Sufyaan at-Tawri benn waaye dafa ñëw ni ko dama lay firil benn aaya mu ne ko du ma la déglu mu ne ko foog mu firil la ko di nga déglu mu ne ko du ma déglu ñu jëm kaw jëm suuf Sufyaan sakk ay noppam rek sanku xelam daw ndongay biñ dàqee waa ji ba mu dem ñu laaj ko waaw imam bu mag bu doy ni yow yow kii li muy wax bu bu juubee bu juumee yëpp di nga ko xam mu ne war a toog rek nga déglu ko jarul coono yi nga ciy daj yëpp mu ni maa ngi bañ mu tàbbal lu dut noonu ci sama xol bi ma bëgg kaa génne génne ko tëmal kon rek du caage ni rajo bu ne wala télé bu ne wala kaset bu ne wala waxtaan wu ne wala kuy wax ku ne dinaa ko jox sama nopp bi ak fu mu mën ci waxee ku mu mën a nekk damay tànn ñi may jox samay nopp ndax maa ngi ragal ñu tàbbal ca lu dul noonu ma bëgg koo génne génne ko tam nga la waay nañu gàttal ñu ci poñe ci àddina bi corka gi wallahi corka yi àddina yaa ko daal loolu saxaaba yi gëmoon nanu gëm ni gënuñu saxaaba ya nanu gëm ni gënuñu saxaaba ya colka gi dañ ko fi bàyyi meuble yi dañ ko fi bàyyi kaas yu bari yi dañ ko fi bàyyi waxande yu fees jenn yi ak ay yére dañ ko fiy bàyyi lal mënul faj lenn lenn lenn lenn lu dul bëgg a tëdd tëdd ca naka la doomu aadama di ab julit ni day roy muhammad jël xaalis gudul jeex loo xam ni wóor na ma ni wa rabbi samawaati wal ard mën naa takkal juróomi góor yoo xam ni ay jaam yàlla ñu am ci ay soxna ma yemale ko ci benn lal boo xam ne dama ciy tëbsi nga wëlbati ko di ko askanale lii mooy la muhammad nekkoon ndax boo ko waxul ci sa biir it loolu mooy liggéey jëm ndax ku la ne boo ko ci as yoonu muhammad da ngay mel ma mën a seet benn tisi am na loo xam ne ma ne libaas suur la tudd mooy yëre yi siiw yëre yi siiw dafa xaaraam julit sol ko muy yëre bu cher cheraay goo xam ni foo romb yow la ñuy xool foo romb sa yëre bi la ñuy coow jataay boo dem yow la ñuy waxtaane loolu dafa xaaraam ci julit mu sol ko comme ni mu araamee nga war a sol lu baax fekk lu xottaata koo loo xam ni kenn baaxul ku la ko mbit moom lay xool ñaar yëpp benn baax kon nu xam ni foñatu àddina mu ñàkk solo mi dañuy dee ba ko fi te moo dox suñu diggante jaamu yàlla takkaay yeeg lan yeeg allahu akbar maa ngi teewlu benn borom xam-xam bu mag bu ngi nekk ni ci téeréem mu ni benn borom xam-xam dafa am benn benn benn benn benn waay dafa am doomam am alal nag moom waa ji mu am alal ba alal ji subhanallahi alazim benn bis benn ndongo ci ndongoy xam-xam yi ñëw di labat waa jooju doomam bi mu ko labatee bañ déggoo ba war koo mayee comme baay ji daa bëggoon doom ji doom ji ni ko lenn rek laa lay ñaan lenn rek laa lay ñaan mooy na ngeen fexe bis bu may sëy ngegenaay bu mu ma topp mat laa bu mu ma topp lal tu ma mën a lal bu may tëdd rek laa bëgg ne ngegenaay ngegenaay laa bëgg mu topp ma benn ngegenaay bu may teg sama bopp ak lu may lal pour tëdd ci loolu rek waaye bu ma dara topp bàyyi ji ne ko subhanallah yow ñun ak ak famille bi ñu bokk ak niñ amee alal loolu nan la ko nit ñuy déggee mu ne ko bàyyi ndax kii may takk daa gën ali ak ali ibn abi talib mu ne ko déedéet mu ne ko bàyyi ndax mën naa gën fatima mu ne ko déedéet mu ne ko fatima keroog ba muy sëy la ma jàngoon ca daara ja mooy yonent yàlla bi saa sallam bañ koy war di ko joxe ngegenaayu lu ñàkk soloog lant gum tëdd kese moo ko topp moo tax bëgg naa koo roy tey ci tàmbali sama néegu sëy xool loolu tey lii du ci jamonoy salaf lu yàggul la xoolal loolu tey jigéen ci koy wax kon moo lay wan ni ñii ñi ngi gàttal ni bu baax a baax a baax ci àddina ñu xam ni bëgg àddina ak bëgg àllaaxira munuñoo daje ci benn xol comme ni nga xam ni sawara ak ndox munuñoo daje ci benn ndab laa wakal la munuñoo daje ñaari kuy munuñoo naanandoo ci benn mbalka la li ñuy wax ma ni sawara ak ndox munuñoo daje ci lenn ndab bëgg àddina ndab li mooy xol bëgg àddina bëgg àllaaxira munuñoo daje moo tax sunu borom bal tu'siruna alxayaata dunia wallahi yéen a ngi gënalee kër ak àddina walal aaxira te gis nga alaaxira jëma leen dig xayrun moo gën fuuf wa abqaata day des allahu akbar fii du xayr te yaf naa day jeex maa indakum yanfad wa maa inda allahi baaq li fi ne léppay jeex la fa yàlla day des xoolal tey tilka yàlla mu ni foofu ma leen dig nga xam ni ku fa yegg rek boo doon jaamu yàlla baax leen tilka foofa nga xam ni boo fa demee di nga tëdd ci lal boo xam ni foogoon nga ni liñ doon tëdd ci kaw suuf tuddul ay lal tilka foofee nga xamante ni doomu aadama ci buntu néegam lay taxaw di seetu ndax miir ba lépp ay leer tilka foofa nga xam ni dafa gëttu ga dafa mel ni mooy ngelaw liy naaw jëw nga utiliser parfum tilka foofa nga xam ni benn naqar du la fa topp daarul axiri muy kër alaxira naj'aluha lilladina laa yuriduna uluwan fi l ard yàlla mu ni ñi nga xam ni musu ñoo bëgg rëy rëylu ak am ay mbir yu kawe ci mbiri àddina ci kaw suuf fil ardi wala fasadan yàqaati taxu leen a jóg wala aqibatu lil muttaqin da nga xam ni mujj gu baax ga ñu ragal yàlla rek ñoo koy mën a nga lawaay mbokk yi nañu yëg ni kii topp àddina yi dang dangi day ba mu tere koo topp yoonu muhammad na yëg ni moo ki tiim ndoxum géej gi di naan ñoo bokk yam gis nga kii naan ndoxum géej lum gën a naan di gën a mar te du yàgg mukk mukk mukk mukk ba mu doyal wala mu am lam bëgg day dee rek ba fi géej gi wa kadalika kii topp addina yi dang dangi ci mit kadalika munoo am la nga bëgg lépp te da ngay dee ba fi addina bi kon nag la waxkat ba waxoon rek moom lay tëjee sama wax mu ne ara rijalan bi adna diini qad qaniu wala arahum radu fi laishi bidduni fastagni biddiini an dunia almuluki kama stagna almuluku bi dunyakum an iddin muy gërëmal lu tuuti tuuti tuuti ci àddina bu sa diine muccee sa diine na mucc te li nga am ci àddina diine tuuti la mu ni gërëm ko comme ñi nga xam ni ñoom ñooy topp àddina liñ am ci diine ni mu tuutee tuuti ñoom doyloo nañ loola parce que àddina lañ soxla kon yow li nga am ci àddina tuuti doy loo ko ndax alaxira nga soxla moo tax mu ne araari jaalan gis naa gaa yoo xam ne bi àddina diini lu tuuti ci diine tuuti ci diine xat xar yow ñoom doy na leen wala araahum gisuma leen radu ñu doyloo fi la ay tuddu àddina gi bi duuni lu ndaw moom daal nañ bëgg rek am lu ngande mu ne yow nag sama mbokk mi maa ngi lay dégg fastagni bi diini nga la way doyloo diine ji nga am lay gën di dolleeku an dunyal muluki walis buur yi seen àddina ju neex ci nekkee bu ko faale kama stagnal muluku comme ñoom faale wuñ seen diine ji ngay dund ndax seen àddina ja yow bul faale seen àddina ja ñuy dund ndax sa diine moo tax kenn ci salaf di wax ju am solo mu ne gis nga buur yi ak borom alal yi bu ñu xamoon ñun fuqara yi topp muhammad ak sunna li ñuy dund ni mu neexee ñoom buur ya danañ bàyyi seen pale ya jor seen jaas yi ñëw xeex ak ñun ba nangu li ñuy dund seen pale ya ñëw xeex ak ñun ay jaas yi ngir jot ñun li ñuy dund ci sunna wa axiran maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu gën a ragal yàlla te xam ne lii day noo ngi ñaan yàlla mu nekk xujjatan lana waaye bu mu nekk xujjatan alayna na nekk aw lay ñeel nu ñu mën koo gindee koo bu ñu fi jógee roy ko waaye bu mu nekk aw lay wu këpp suñu kaw lay wu këpp suñu kaw mooy dégg nañ leer na buñ fi jógee bañ a jëfe amatuñ lay kon buñ dajeeg suñu borom moom amut lu ñuy wax duñ ne xamul woon waaye xam moom am na noo ngi ñaan suñu borom ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi dimbale ñu tàggataat ñu ci mën a sellal suñuy jëf moo xam lu ñuy wax la moo xam lu ñuy jëf noo ngi koy ñaan suñu borom mu sawarloo suñuy cër ci topp muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan suñu borom mu tayalloo suñuy cër saa bu ñu jógee rek ba nar a jàdd yoonu yonente bi jaaram sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu suuxat xeesal roose sëmbërtal ci suñu biiri xol ngëm yàlla ak bëgg muhammad ak i saxaabu ak di leen roy noo ngi ñaan suñu borom saa boo xamante ni nar nañoo jàdd yoonu muhammad su boobaa nu ngi koy ñaan mu faat ñu si tabal ñu àddina moo nu gënal ñuy fekk yow wuteeg muhammad sallallahu alayhi wa sallam hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi am na laaj wala ci wàllu jaay ah dégg ma ci wàllu jaay ak naam li ngay wax daa mel ni coow li tax na dégg ma de jaay waaw juróomi téeméer lay jaayee waaw mu jaayee li ñu ko lebalee leen waaw koy lebal tamit wàññil leen ko laa soxla dara néew parce que kooku mi ngi aju ci ki ma ko jëflanteel kan la pour tàggatu la ci ay jaamu yàlla moom kooku tawfiq yàlla loolu moom yéen ñëpp na ngeen ko yëgandoo noonu léegi njaal bi nag li ñuy jiital ci tontu bi mooy ku ne na yëg ni am borom kër bu farlu am soxna su farlu comme ci doon ci ñaari wàll yi kooku tawfiqu yàlla boo xam ne jar na di julli di sant yàlla te nga xam ne lii nga am da nga war ci sa téeméeri morom ñaar ñoo ko càmbale nit kooku benn la beneen bi ci des moom mooy ab jullit nag moom maanaam nekk ak ku sàggan sikk néew ci ni wañ ko war a mën a tax a sàggan ndax yaakaar naa ni ki mu nekkal lu mu sàggan sàggan su fekkee juuma ci ni may nattee fa mu jóge sëy si mën naa am sax foofa la càggante bi ëppee waaye nag xëy na da doon foog ni fi mu dugg mën naa am foofa nag wax dëgg yàlla kon càggante gi mu doon méttitlu fii moom fa la xëccaliku kaay ba waroon a amee ndax maanaam kum dimbalante lay fekkante fekk na rafet njot mooy am ci biti rek comme ni ngeen koy gisee da nga gis góor goo xam da ngay rafet njot ci moom jot wala nga seen jigéen jox da ngay rafet ci moom fekk la nga yaakaar ak lay am amut waaye sëy bi gën a neex tey ci sëy yi mooy sëy soññante ci yàlla subhanahu wa taala bari waa na ay sëy yoo xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ngi dund àjjana àjjana ndax lañu am bariwut waaye dañu ngay soññante ci ay jaamu yàlla suñ dee merente dañuy merente ci càggante ci topp yàlla suñuy xuloo dañuy xuloo ci topp yàlla kon yooyu ay mbir la yoo xam ne maanaam am nañu koy dund ah jullit bi nga xam ne yàlla da koo nattaloon loolu dund ko foofu leen koy def ak mooy la muñ la muñ te dëkkee ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax nit yàgg naa dund lu wuuteeg na muy bëggee muy ñaan yàlla suñu borom soppi la kooku benn la beneen bi ci des mooy nekk ku sàggan mun koo tax a sàggan am na ay moyens yu mën a jaar mooy su fekkee moom tane na borom këram na koy dimbale li mu ko tanee su fekkee tanewu ko nañ jéem a seet pexe yuñ def pour am luñ mën a dimbali ko bokk na ci misaal yi mooy di teewee xalaqaati xam-xam yi bokk na ci di di déglu ay kaset di faral di ay indi ay kaset ci programme boo xam ne yow ak moom lay doon ah nit ki borom këram borom këram toog ndaw si toog ñoom ñaar ñu toog kenn ku ci nekk di déglu ah ku déglu ku nekk ba yegg si ci point bu la laal nga nangu ni bii moom yow la laal te bopp rek nga jug faju keneen ki bu point bi ak see point bu ko laal mu yëg ni kii kat moom tey laal na ko suñ paree ñu jéem su fekkente ni nangam la ndox nañ fexe tey balaa ñu tëdd ci lal nañ ci jéem a jëfe niñ ci man yooyu yaakaar naa aw doxalin la yoo xamante ni nit ki bu ko defee yàlla mën na ko caa dimbali am naa càggante nag ci wàllu responsabilité yu demee noonu loola moom ci doxalinu àddina xam nañ ci ni responsabilité yombut bariwaane ñu ngi koy jox te fekk yeyewuñ ko bariwaane ñu koy aaki moo te fekk du ñoom joo ko war a téye moo tax yéen yàlla di wax ni saa bu ñu dee ba àddina waaj a tukki mooy dañuy jël responsabilité bi def ko yooyu isa doyya al amaan ndax loolu li muy firndeel rek mooy doomu aadama daa waroon a yëg responsabilité bu diis bu gàdd ci loosam def ay effort moo xam ku jigéen ki la moo xam ku góor ki la kon su ko deful rek moo wax doyya al amaan kon yooyu nag jullit bi la dëkkee ñaan yàlla suñu borom amaan na yàlla dana ko ubbil ay buntu gannaaw loola allahu taala maanaam farata yi topp borom kër daal ku ci yam daal ah laa chaque loolu dégg nga wax dëgg yàlla loolu ñàkk am fiq ci diine moo tax kii wax di wax loolu. loolu jigéen ji la concerné waaye concerné wul góor gi ku xam sax ku xam sharia ni muy waxee maanaam jigéen ji lañ bëgg a wax ni dooleem ji gën a rii mi ngi koy amee ci topp borom këram ak def ay jaamu yàlla waaye nit ki bala ngaa topp sa borom kër da ngay xam loo ko toppee. bala ngaa def say jaamu yàlla da ngay xam ni ñuy defee say jaamu yàlla yow donc boo nekkee sa kër doo xam ne am na ñuy góorgóor tey nga dajeg sa xalaqa bi ku la gën a yaru gën laa am kersa gën laa jub gën laa baax gën laa dugg boo ñibbee bu la baax taxee jub wax dëgg yàlla di nga defaru kon yooyu yaakaar naa ne kii kii cerewaate yooya wala ki nga xam day tënk ca lee bu xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg njëriñ yi ca des lam mën a indi ci njëriñ yi muy fàggu la chakkale bu tënk ci jigéen te loolu du dégg dëgg wax dëgg yàlla kon ku xool ba ci biir da nga xam ne jigéen ji dëgg na concerné que góor gi am na sukkal ak jugal masala la bu bëri ay coow lool waaye ci gën a gàttal rek bu dee buntu sukkal comme ni jigéen ñiy def ci maya ndox wala yu demee noonu loolu laa sakka ni aayut insha allah loolu aayut donte am nay borom xam-xam na yuy wax daganut yàllaa gën a xam wallahu aalam liñ jot a gis ci góorgóorlu mooy dara nekk ginnaaw bu ñu defee gëstu laaj ko lan mooy cosaanam laaj naa ay mag ñu xamal ma ni ma wegeel la ak teggin rek wegeel la ak teggin te islam bu dikkee fekk aada wala wegeel ak teggin bu juuyoowu rek jàngale yoon la chaque sukk jaay jàngale jàng juuyoowu rek jàngale yoon tamit ndax nit ki àggul ba suuf wa illa boog sukk la bu amul benn firnde jaamu yàlla wala màggal wala lenn màggalu mën a jaamu mën a dëptikiwul lenn dama laa ormal kese la sama bàjjen la wala sama yaayu borom kër la wala sama papa borom kër la ila axir maa mun naa leen ma wegee leen ngir loola bu dee ca ñooñu moom mën na sa pare amaa bu dee góoru jàmbur wala demee noonu bañ ko faa def mooy li gën waaye bu dee ñoo xam say maxaan lañ sa papa yi jëkkër sa yaayu jëkkër wa ila axir maa mun naa leen ñooñu nga defal incha allah dara ñu ci wa astaghfirullah day moom mooy baati jéggal waaye yaa lay ca astaghfirullah yi nekk lu jóge ci xol loolu am solo astaghfirullah mooy baat ci dégg waaye aka neexoon astaghfirullah di balluloo ci biir xol yi da ngay fekk ni kii wax astaghfirullah jamono ji mu ko yëgul benn métti yëgul benn naqar yëgul benn tëgëf xol yëgul genn tiitaange kooku astaghfirullah boobu wax dëgg yàlla bu doyee dëgg amaa nit ki di wax astaghfirullah ànd ak réccu ànd ak méttitlu ànd ak naqarlu ànd ak tamit nag rot na ci sunna nit ki julli ñaari rakka def ko rakaatal istigfaar wala rakaatal tawba tey doo dëgg yàlla toll naa sama borom ma bàyyi ba dem sama kër julli ñaari rakk tuub jooyal yàlla su ma ko mënee su ma ko mën ma mittitlu ci sama xol tuub bàkk yàlla subhana taala jéggalu ko wane sama doy rek sama lot baaraalu ko fas yéene du ma ci delluwaat loola moom bokk na ci li gën a am solo te gën a màgg ci rek yàlla ko dara am koo jéggal ay bàkkaar wallahu alam ci tuub ne tuub bàkkaar yoo xam ni toon koy nekkul ci lislaam wala cedd lool wala ba xamagul sunna wala xamagul mu tuub ko tuub bu dëgg ba yàlla baal ko te delluwaat ci ba deewaat bàkkaar yi bokkul yi ñu lay wax al islam tatimmu maa qabla boo xasee tuub delluwaat ci yàlla rek islam moom far na la nga defoon léegi nag fi ne set nga wecc fi ne moom liñ lay toppee mooy li nga commencé foofa sa kër ngay fàq waaw xam nga am na fu muy toll foo xamante ni daanaka mat na doom alors que am na fu muy toll foo xam ne daanaka mat na doom ndax banaon ko boobu su dee booba la mu yore àttab gis baax àttab gësin la chaque nit ki dafay toog lu toll noonu am naa su fekkente ni dafa avorté nag béréb ji di génn ci moom béréb bi dafa dara mu set ba mu set du tënk na ci fukki fan ak juróom wala fukki fan ak nangam day bàyyi ba set rek bu béréb jooju setee mu doog a commencé mën naa bañ a yàgg bu fekkente ni cas bëri na ci lay gën a yàggee ci yenn ci yi ñuy gis ba wallahu